Hmm. parce que Dame bu ki waay nee ñom enseignants itam amna ñaxtu bu mel nonu dañu bëgg and ci donc xex bi prochainement moy fexé ba autorité yi teg si Tout de ko hmm. non seulement mu mais waye aussi nañu bàyyi contradiction bi. Hmm. def article 319 qui condamne l'homosexualité ce même état a di jox homosexuels ay récidivistes. non l'acte contre nature.

te ay magistrat jël décision de manière souveraine. Mhm. ci lan lañ sukkandiku. si si c'est une preuve. ah preuve lan acte contre nature. acte contre nature loolu laa lay wax. ay homosexuels lañ. Mhm. acte contre nature défini par l'article 309 daa di ëmb. Mhm. homosexuel lesbienne y a des lesbiennes qui sont en prison. ñooñu ma la tuddoon fii ci bar piano daal di def détournement de mineurs di def ay actes de lesbianisme ñu ngi ci c'est sur la base de l'article 319.